maaleykum sunu mbokk internet yi ñoo ngi leen di siyaar di leen nuyu di amaat kontaan ci ak mbégte lool jàkkaarloog yéen seen chaîne bi nga xam ni moom mooy FMTV di chaîne télévision bi nga xam ni ngi fii ci kër Alpha Thiombane waaye tamit ci chaîne boo xam ne daana ko rek li muy jariñ mooy mboolem tund lutt bi yëpp rawatina na tamit gox yi ak gox goxaan yëpp te nag ci émission bi ñuy wax ko li yéen saan ñëwoon fii tey seet ki nga xam ne mooy artiste bu mag moom mooy Seydou Seydou nag ñu gën koo xam ci wayum cosaanu séeréer waaye tamit am na leneen lu muy yëngu tamit mooy way international yàlla dogal mu nekk ci woy bi lu yàgg lool ba gën a ci am solo bu tuddee Tungoom mhm. Seydou di ko wax ne nuñ ko tur ba Toñ Dalaana Toñ Dalaana mhm. mu nekk bu am solo boo xam ne kan jamono toll mu ngi ci biir marché bi waaye nag Seydou bëgg a waxtaane kan mooy Seydou kañ la music musique bi ak lan moo ko dugal tamit ci musique bi ginnaaw bi la nuyoo ba waaw asalaamaaleykum eh, waa Sénégal maa ngi leen di nuyu wala àdduna bi yëpp maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur sa sant ak foo mën a ah di leen xam tamit ñun moom aar yàlla dafa def ndeysaan dafa mel dañoo juddu mu nekk suñu deret waaw parce que mën naa ne man Seydou bi may nekk eh, tout tànk di am ay sept ans huit ans jàpp neuf ans am na gu mag bu fi nekkoon buñ ko ci fi bu ñu xamoon buy moom lañ fi xamoon muy bamboy tama yàlla def bamboy ñëw ne sama yaay jox ma Seydou mii ma yóbbu ko ñu ànd suñ suñu liggéey bii sama yaay na ko sama doom deful li ngay def day dem defi jàng ma dem daara ba ñëw teewlit ma toppaat ci trace bi bon mën naa daal bi may yelwaani sax damay gàddu sama pot di yelwaani di dugg ci kër yi di way ñu may sarax parce que tamit loolu laa débuté ci sama aar yàlla def tamit ba mu jógee daal bi ma jógee daara tamit ma ñëw fii ñu taxawal benn group fulum groupe bi ñu ko taxawee tamit boobu fulum am na ñetti groupe benn groupe bu ñuy wax yar yaraan bon ak beneen group boo xam ne tamit dafa taxawoon ci benn côté ñoom tamit ñu ñuy liggéey ñun encore ñu formé suñu groupe ñun Modou Ciss booy bi tey nekk tës tës ci la bokkoon groupe boobu après bi ñu dem bañ jóbi jamono nag groupe bi séparé wu dem ànd ak Moussa Gueye xam nga cent pour cent bokk mu Moussa Gueye groupe mu nekk benn group bu ñu demee nag ba Moussa génne album Ah, après groupe bi tas wax dëgg fa yàlla gars yi ku nekk wuti foo jëm Moussa Palou mii jamono ci la nekkoon Cheikhou Yambaas tey ci la nekkoon man mii ci laa nekkoon am na beneen règlement bu ñuy wax Gilbert doomu Colette Dieng bu Morolan ci la nekkoon mais après groupe bi bu mu tasee Cheikhou ak Moussa dañoo ànd dem man ma bàyyi ne banaa waaw bon ndax instant boobu dafa amoon ay woy yu daan way bu jëkkoon wala nga xëy di way dafa waaw dafa am yu ma yu ma doon way bu jëkkoon parce que xam nga comme mooy comme li ma la wax xam nga bamboy tama mhm. fii moom moo fi nekkoon géwal bu mag ci bindut mook mhm. bab malik mais góor xam moom góor googu yow nan nga daan ànd ak moom moom bamboy waaw bamboy bon mën sama anda ak moom mooy ne déggu ma wax nee sama yaay nama ma jox pour ma ànd ak moom mhm. sama yaay ne ko kii day jàngi alxuraan mais bi ma demee ba ñëw damaa toppaat trace bi mais trace bi du woon man ak góor gi kooku beneen groupe laa taxawal man ak ay ñeneen mhm. ñuy liggéey ci loolu ñu liggéey ci loolu ba jëmi jamono ñu jël groupe boobu jël ko suude ko groupe bu Moussa Gueye mhm. bu fulum mhm. mu nekk benn groupe mais bi ñu demee ba jëmmi jamono benn femme bu ñuy wax Odile Seck doomu Edouard Seck la tey mu ngi dem bitim réew du ñëw def na ay album mën naa ne Odile tey bi mu demee boo gis tubaab bu ko takk tubaab bi imposé ko moo imposé ko album tubaab bi dafa xool léegi da ngay wax sa groupe ñu ñëw def album Moussa Gueye moom Akodil c'est que c'est que Seydou dama bëgg a faw moom mooy daal yow mm-hmm. Mm-hmm. dama dégg si nit ñi mm-hmm. c'est-à-dire yow yow dañ ma dama dégg ni tey ku fi nekk wayka séeréer yaa ko dàq ko way c'est loolu

booba tënka jokkul kaw. Mhm. kër yi yàlla dafa def def ndeysaan dañu doon yekk mais après dañuy tàncaloo ci ndab li. Mhm. man kër gu may dugg loolu laa fay duggee yee adidin kumba boo toogee njaboot gi tasaaro bakken jamala bëgg. Mhm. am na ci ay këy ndey ndey daara yu bëri kaar ci kii way boobu ma doon way te et puis gis na ay kër yoo xam dem nañ ba xale yi ñu leen di cër mag ñi à part xale yi à part loolu defaloon na ma ko ci way woowu. mais way ci boppam wax dëgg yàlla yàlla dafa defoon mu nekk sama deret man dama daan dox di café way man amul fi may nekk ci àdduna te du ma way parce que le problème mooy dama koo ko hmm. ba ma toll ci as boo xam ne war naa gis ni lii ma yor ni war naa a exploiter hmm. ko doon way di ko way ba xool benn femme day taxaw ne ma non non Seydou tak yow est ce que yow yaay way fu mu toll ni ma ne ko waaw mu ne ma non voix comme voix Youssou Ndour awa kay li nga ciy way dara du ma ne ko waaw parce que Youssou Ndour dafa am fu ma toll parce que damaa ni musique tey bu demee ba am doole Sénégal Youssou Ndour daf ci liggéey lu bari. Mm-hmm. moo taxoon ay wayam dama ko doon jël di ko wayantoo ba tëngaj dañ doon taxaw di ma xool daaru eh, mën naa ne Sida Gamo ba coow leen but dañ doon wax Seydou mi mais taal ba bii moom yelwaan na moom way rek lay def quest que ça mm-hmm. xam nga mais boobu dafa nekk sama deret mënu ma koo bañ ba bi ma màgg tamit man exploité ko yàlla def ma nekk ci nekk ci ba ma am ak benn groupe bu ñuy wax fayatal rab mm-hmm. bu ñu dajee ma nekkoon ci benn kër bu may garde waji sak chaque guddi muy deg sama voix quoi mhm. bis mu ñew fëgg bundu bi ne grand ma ne ko waaw mais sak guddi damay deg sak kër gi am voix bu neex bu ci genn waji di way mhm. yow la ma ko waaw grand il faut ñu def ben affaire ma ko pour lan mëno ma damay def rap mhm. léegi dama bëggon nga jappalé ma ci ay refrain biñ démé ñu def première son ñu koy tuddé jirim biñ défé son jirim mu jall après ñu délu ñu def live wax mbaane biñ défé live wax mbaane ci lañu mujjé def silmaxa silmaxa nek mom mom la clip def nañ ko clip mais man image yi man boo ko ma parce que bi ñuy def clip bi fekk na man maa ngi Louga. maa ngi Louga waaw. mais mais bëggoon xam Seydou. waaye fental sa bopp. Mhm. waaye bi ma njëkk a fental sama bopp ci àdduna ba ma xam ko ba ma xam ko. Mhm. yaa sa wan sa yooye ma ne yaay fi saañ di. Mhm. yaaye boye wan saañ saw di umirul booba sama yaay dafa xëy ne ma damay dem màkk. maa ko màkk mu ne ma waaw. ah yàlla def tamit bi mu tàggoo njaboot gi jooy ma leen fii amul jooy seen yaay bu xëyee ne leen damay dem seeti na bi mhm. ngeen war ko def ay rongoñ man de mbégte laa koy def maire bi dugg ci oto bi ma kër gi ma ne ko yaaya booy ri wan sañ sa yooy mi wan yaay fi sañ di mhm. yaa so wan sañ sa yoo mi wan yaay fi sañ di yaaya booy wan sañ sawdi umirul xuura bon ma indi way boobu mooy sama première lima japp ni mom la ñëk créer ci way waaw waaw ndax mën nga ci mën nga ci ñëw tuuti rek effectivement wonti yaaye boyire won sañ sayo mon yaay fi sañ di yo won re sañ sayo yaay fi sañ di e yaaye sañ saudi umirul khura <laughs> yai bai wansan sayo yai fisandi mama yai wanti sanyi sayo yai fisandi ya finje sis wanti sanyi saudi umirul hora ya fi fatu sis wanti sanyi saudi umirul hora ya fi mam wanti sanyi saudi umirul hora dañ ko teug fofu xamna ni comme paré guñu ji ko dañ koy yewale fofu mais bo moy sama premier morceau di ma ñëk way sama ya te moom laa njëkk a créé tamit ci sama li ma xam. waaw mhm. mais mhm. Seydou. waaw mhm. dañuy gën a ñëw ci deuxième ponk bi. moom mooy bi nga tàmbalee di way. créé nga sa way bu njëkk way bu sa way jur bu jigéen. léegi nag Seydou mu ngi tàmbalee way. ba ngay tàmbalee way ndax amul nga ci ay jafé jafé lool ci wàllu njaboot geeg. fami beek mbokk yeeg yoy dal ndax amatu ay jafé jafé waw jafé jafé kay bu baax parce que jafé jafé bi liko jur moy man jamono bi may commencé way nekk mo won ak sama yaay nekk mo won ak sama pap sama nijaay laa nekkaloon te moom moom a jàngal alxuraan mais xëy na moom yoon bu mu bëggoon ak man yoon bi ma jël bokkewul léegi nag man mën naa ne du man rek parce que man yoroon na samay morom lu toll ñeent mais man li may teg ci ay jafe ko kenn parce que man mën naa ne yoon boobu maa ko jëloon wax dëgg yàlla parce que tamit guddi gi dañuy ñuy a tool mu ne kenn du génn ma jékki-jékki yoxoosu il faut ma dem organiser booy ñu génne ut ay ndënd toog dóor ba min mi zéro heure laf ndënd yi booy dem tëddi ma ñëw yokos ndànk dugg bu ma xëyee ñu faj ma ba ma nooy nepp mais teewul damay xëyaat rek bu ngoonee ma defaat loolu dem yoon sama yoon xam nga léegi mu dem nag ba gis ni kii ñàkk na jom ci lii ah moom léegi mu bandoon na ma ba ma xam nga mais wax dëgg sama wàllu papa wala sama wàllu yaay wax dëgg yàlla dafa nekk bonheur ci ñoom li may def nii bonheur la wax dëgg yàlla ci benn problème boo ne tey bon leneen la quoi loo xam ne neexu leen. mais mhm. bi mooy premier na single solo xam ne. waaw mhm. que mën naa ne def naa single boo xam ne maa ko defal sama bopp mhm. mais single boobu dafa am label bu ñëwoon fii. ñu jógee Cité Takku bu Tëngéej ñu ñëw ñu na artiste Morlan lañ soxla ñu ñëw morla dajé bien FM ñu ne dañu bëgg a xool nu ñuy jàppale artiste yi ñi amul moy ñu produire len bon ñi am moy tamit bëgg fekk na bëgg nañ ñu liggéey ak ñom ñu xool ñu liggé ak ñom man nak bo néna la man awma moy ta bëgg na tamit def sama carrière solo bop ta bon moy amul légui nak biñ mo waxé ni kon da ngeen di fexé ku ñëw studio ñu tessé la boo tegee après ki nga xam ne mooy ingénieur bi mu ngi Europe bu dégloo après ñun dañ la contacter ah yàlla def tamit ma jóge fi benn weeru koor dem si ta tàkko fekk ma fa musiciens yi ma ne comme musiciens yi ñëwuñu léegi waa ji na ma tigal instrumental mu tegal ma benn instrumental instrumental bi maa ngi naan jamaanooy ay buy jamaanooy ji eena caleer yi jamaanooy koy waree réew fii yaa fi ndeysaanam koye worere o fi fibo fe mo fi minon mino ko on yaye limero fumi non mino ko on bab ti titeri ko fi yaye lahay jerinji duniya minon mino ko on yaye limero majjel ko tudde ko reew titre boobu reew laa ko tudde